moom la yàlla teg ci boppi réew mi di ko ndokkale itam ci bés bi naam te ëllëg la waaye sañ nañ koo ndokkale li tax ñuy ko ndokkale mooy at bii ñu weesu taxawoon na ci néegi tànneef yi wax wala mu wax def li nga xam ne moom la wax ci réew mi kon nag bu ñu dellu si waat ñoo war a am moom beneen jetaay bu ni mel la war mooy ñu toog déglu ak yaakaar dina gaaral ci lim fi waxoon ba pare xëj na dina ñu jox lu bees am nañ ci yaakaar ngir saa yu mu taxawee jàkkaarloo réew mi dina génne ci gémmiñam loo xam ne dinay bégal xol yi kon nag ñu ngi ko wax ne His yi ñu ngi laa ndokkale ci loolu di ko ñaanal itam waaye nag comme niñ ko tëralee woon ci fan yi am na tuuti wécceeku wécceeku ci groupe bi aada yi nga xam ne ñoo war a teew ci place ba Jaliba Kuyate moom fañ ko placé woon fa lañ ko bàyyi muy Mosque Road waaye Jali Keba dafa jóge autoroute ñëw ci boori Jali Bakuyate diggante Mosque Road ak Essensaire bi gannaaw loolu Kabakel ñoom itam fañ fañ daan taxaw bi yoon dañoo toxu ñu nga dem ci hôtel bi ñuy wax Princess Diana uh-huh. mooy bi jublu High Court uh-huh. bu bu tusaab kurunulaay ñoom ñu ngi féete wàlli court house bi den kotongoom ba tey mu nga nekk BTC ca seen bunta bu mag ba pël yi di fula agrobats kër gi jublook lopitaan ñu xam ko ci mbayeen foofa lañ leen jagleel den gese-gese bi mbenn bu tuuti boobu noonu soo jógee ci ascenseur bi dem biir Banjul mooy liwalin foofu lañu leen jagleel den Sàngamaar ñoom itam ñu ngi nekk ci beneen wàll bi jubloog mbedda bu ndaw boobu ci liwalin woni sisters ñoom ñu ngi féetee basketball loon bi mooy loon boobu la xale jubloo jumaa jeeg ah, euh, annexe parlement foofu lañ leen jagleel euh, batiyaay ñoom ñu nga jubloo koñ bi nga xam ne moo dem outpatient fii ñu daan wax outpatient tey muy emergency mooy foofu ci ron tax bi foofu lañu leen jagleel kumpo yi ñu nga ca bunti néeg eh, palaas yi aada yi mu ñu eh, arts and culture ah, foofu leen leen jagle digganteem ak gaal hunting bi BTC digganteem ak polyclinique foofu lañ leen jagleel waaye leneen li ñu cee tudda rek mooy green youth si ren dañ bugg a ñu wecci li ñoo weccee mooy fi ñoo jëlee ji président dafa ute fi ñu ko daan jëlee bi yoon dañ soxla green youth si yëpp waxtaan nañ ci sécurité bi d'accord nañ ñu ngay dem gaara ca bunti gaara si BCC bunti kër gi amee gaara si moto bi foofu lañ war a assemble ñoom ñëpp di xaar convoy bi bu ñëwee ñu mottali éene bi yóbbu ko ba ci parlement ñuy ñaan nag nañu sàmmwante ak lii nga xam ne moom lañ tëral dowul ne dañ bugg a sonnal kenn liñ bugg a rek mooy lu yombal mbir mi nga xam ne duñ am benn jafe-jafe mm. loolu mooy li waral lii ñuy soxla yi nag ci wàllu protocole képp koo xam ne dañ la jox invitation na nga ñëw ci waxtu juróom-ñetti waxtu jëm juróom-ñetti waxtu genn wàll war naa fekk ñu toog di xaar kilifa gi war a ñëw eh, suñ buggee président teel a ñëw ñun ñii ñu invite dañ war a teel a dem suñ teelee dem toog di xaar ba néeg bi fees del ci biti bi fees kon bu boobaa président su foo ko su waxoon ne fukki waxtu juróom laay ñëw sax mun na ko ci ñëw balaa loola eh, gannaaw loolu itam bu nekkee ci biir néeg bi nañuy xerew lu bàyyi wax ju bari ji solu bi ci jigéen yi ñu ngay ñaan buñ sol lu werax fu waay toll di gis sa cër rafetul góor ñi itam ci saat ak jiin du palaasam foofu du palaasam ñu ngay ñaan képp koo xam ne danga nga am invitation na nga sol sol bu yiw nga daagu ñëw ci béréb ba aji jigéen ñi dinañ ko wax waaye foog ñu ñu njàmbaas ko lépp loo xam ne si wàllu dund la pare nañ ko diggante West Coast KMC ak Banjul maakaan bu nekk jox nañ la sa jumtuwaay togga pour dundal doomu aadama yi parce que Yaya Jammeh kenn mënu la xayma mbiram saa yum ootee pare na lépp loo xam ne luy bëggal xoli doomu aadama la ak luy dundal doomu aadama mu def ko ma em fii ba ci kanam waaw jërëjëf Alaaji Moustapha Sène waaye balaa ma laa bàyyi yaa ngi fi woyi fi solo waaye am na tamit léegi-léegi nga dégg téléphone yi eh, di këririn këririn fekk mu. jërëjëf jërëjëf mu expliqué bi waaye yaa ngi dégg nooy si biir lan ngeen gaaral. Euh, li ñu gaaral foofu mooy képp a koo xam ne yaa ngi dugg ci biir parlement la gën a rafet la gën a antu mooy sa mobile na ko fay. bàyyi ko vibration sax mooy yaa ngi ubbi bunta pour wax mhm. bañ mu bañ a yëngatu mooy li war nañ fay mobile yi yëpp kuy dugga na nga fay sa mobile su mobile bi taalee daje kilifa gi di wax ah borom mun na cee am fitna te bugguñ kenn ku am fitna dañu oote pour lan jëriñoo suñu bànneex ci suñu réew jëriñoo ci li nga xam ne His Excellency président moom lañu ñu te fas na yéene pour jox ñu ko mu doon mbégte ci suñuy xol dundal suñu xol yi bu boobaa dunda gi gën a yomba gën a yokku incha allah waaw jërëjëf sa kàddu yu rafet na alaaji Moustapha Sène waaye nag ma ñëw kii nga xam ne mooy euh, national youth mobiliser euh, di Mr Pierre Minté euh, Pierre Minté xam nañ ne yaa ngi taxaw di def lu am maanaam moo na ne yuut si yëpp sa roon lañ ne waaye nag yuut si bés boobu naka nga buggee gars yi génnee ak ak ñëw dalal président Jammeh waaw jërëjëf Ramatoulaye comme ni ko alaaji Moustapha Seen waxee dinañ njëkka ndokkale His Excellency the President ak famille am ak mboolem koo xam ne tam yaa ngi si néegi député yi parce que ñoom ñoo xewle lii dafa nekk loo xam ne nii constitutional requirement la mooy ne loi Gambia hmm. dafa wane ne at bu nekka njiiti réew mi dafa war a dem ci néegi député yi parce que ñun ñëpp areas yi nga xam ne foofu lañ jógee foog naa dañ sànnil karta suñu ay député ñooy suñu représentative si fa lañ dee toog di waxtaan li nga xam ne moom mooy réew mi liggéey yi nguur gi war a def dépassam ak yooyu noonu kon président su fekkee ne loolu warugal bu mu ngi koo def kon dañ ko si war a jàppale jàppale bi mooy naka mooy ne euh, ëllëg la war a am pour def loolu noonu ci kaw loolu noonu euh, dafa nekk loo xam ne is li nga xam ne lu ñoo ooyee pour euh, digëral démocratie si réew parce que réew bu jub réew bu baax bu nga nitam rek mooy wax nitam ñi ne kaay leen ngeen ñëw fekkee you li ñoo waxtaanee pour naka la ñoo mën a yóbbu réew mi mu jëm kanam kon foog naa loolu dinañ ci gërëm nguur gi gërëm ci président Jammeh ak euh, député yi si seen boppa kon ñun li ñoo wax si wàlli ndaw ñi mooy ne ñun pare nañ bu yàgga parce que euh, National Assembly euh, committee bi nga xam ne ñooy organise li oyoon nañ ñu waxtaan waxtaanoon nañoo ñoom lépp li nga xam ne ñun suñu aaxala wala li nga xam ne suñu warugal la nga xam ne dinañ ko war a soxla pour li war a dimbalee ndaw ñi pour ñu teewee ko participer si loolu yëpp def nañ ko ba pare. kon ngaa ce ngaalama ci fànn boobu noonu li ma oote fii am mu doon li am solo mooy ne rek ñëpp seen warugal la mboolem koo xam ne Gambien nga ndaw nga citizen nga bëgg nga président Jammeh bëgg réew mi. foo mun a na la jaral nga ñëw Banjul elek ci néegi député yi pour ñoo fekkee dégga li nga la his Excellency the President pare pour wax pour dega Gambia dégga ko ak li nga xam ne jëm kanam ak li nga xam ne ñoo ñun kanam parce que ñun ñëpp xam nañ président Jammeh surtout fànni ndaw ñi you know I mean interest bi nga xam la si attach suñ préparation nak pare nañ in all levels you know region si Euh, diggante Banjul West Coast ak KMC regional mobilisation si ñu ngey def seen liggéey ñu ngey def consultations ak ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk si seen ron Green Youth si nga xam ne tam ñoo nekk si head si nekk si area si amoon naa meeting ak ñoom waxtaan naa ak ñoom lépp loo xam ne ñoom it seen axala li nga xam ne loolu lañ war a am soxla pour seen jumtuwaay pour padal bés bi mhm. li ñëw ci man ko pare li si gën li si li si des rek mooy ni ñoo organiser pour ñu transport len ndaw ñaa ngee from all the areas from West Coast KMC ba ñun ñëpp pare nañ pour ëllëg ñu génn si large numbers pour teru président bi président bi xam ne ndaw ñi fekkee nañ ko ñëw nañ pour jàppale ko si li nga xam ne liggéey réew mi so foofu lañ toolu right now fu mu euh, nekk KMC Banjul ak demee noonu waaye as a national youth sax naka nga def ak yeneen youth si nga xam ne ñu si yeneen gox waaw xam nga comme niñ ko waxee rek xam nga bés bi benn bés la rek te xëj na ëllëg la ah, da ngaa gis ne yeneen youth si nga xam ne ñoo nekk si yeneen région si mm-hmm. ñoom tamit yónnee nañ si ñoom bataaxal xëj na ñoom because of um, uh, provision amul pour mun leen a indi ñoom ñëpp ñu ñëw because soo leen waree indi di nga am fu ñoo war a fanaan parce que duñu xëy rek ñëw suba soosu ni kon teel a ñoo war a ñëw foo nga dikkal leen foo nga jox leen ñu lekka ak yooyu noonu soo comme que mbir mi demeewul noonu waaye ba tey ñoom it wax nañ leen ñoom it luñ ci mun a indi si areas yooyu wax nañ leen ko te su soobee yàlla dina am ñoo xam ne tam dinañ jógee si yeneen gox yooyu noonu yeneen région si tam pour ñoo fekkee ko xëj na noma bi du takku waaye dinañ ko ñëw pour fekkee ko comme lu mel ni seen njiit ak yooyu noonu waaye taget bi li si gën a am solo yëpp mooy diggante Banjul KMC ak West Coast te ni ma ko waxee rek you know préparation bi dëgg dëgg sori na pour ndaw ñu mobilise pour mun a ñoo fekkee li nga xam ne mooy state opening of parliament incha allah ëllëg ok ah, jërëjëf ah, Mr Perminte national youth mobiliser ma ñëw si suma yaay kii nga xam ne mooy ajaratu Fatou Keta ah, ma